waa ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين noo ngi sant sunu boroom aji màgg ji te loo noo ngi koy bàkk di ko kañ di ko jaare ci turam yu sell yi ak melokaanam yu kawe yi nga xam ni moom sunu boroom rek mooy ki ko jagoo نوغي جلد سلوال جيرنت بي صلى الله عليه وآله وسلم دي نيان برام بي سبحانه وتعالى مدكي دوت تي وامم خيول تي كاو يرنت بوبو اك اي صحابة رضوان الله عليهم أجمعين دلو سوات نج بنن يون شرون كبار خم خم سنبي نبتب القرآن العظيم في هذا الشهر المبارك wa fi ashriha ci weeru koor wii nga xam ni dafa tedd lool gën a tedd ci mboolem weer yi nga xam ni sunu boroom sàkk na ko di fukk ak ñaar waaye ci fukkam yu mujj yi nga xam ni moo gën a sell ci fukk yi nga xam ni wala bis yi nga xam ni moo nekk ci weeru koor muy fàttali sunu bopp di leen fàttali ni ay fan yu néew moo tee weeru koor dem ak ay ngëneelam xalaatal yow mbokkum jullit mi buur bu màggee ni sunu boroom ak ni mu amee yërmande ak ni mu baree jàmm ndax huwa salaam ak ni mu yéenee ay jaamam gindeeku mu may leen occasion fóotu ci fanweeri fan bi la fukk yu jëkk yi rëccee ñu ñu góorgóorlu ci fukki digg bi bi nga sàgganee ba farlu ga waroon defoo ko ci bu digg bi ñu ni mboolem liñ la mayoon yokkaat nan ko ci fukk yu mujj yi xel woo daw lu mu ndaw ndaw ndaw rek mën ngaa yegg fa nga jëm man nga cee màng ci aw yiw loo xam ni bu la suñ borom defalee tawfiq at moomu yaa ngi mel ni ku jaamu yàlla fanweer juróom ñett fukki at ak ñett ak i weer su fekkonte ni day sunu jagub àllaaxira yitteel nañu comme ni sunu jagub àddina yitteelee jéego yi ñuy daw mbokk yi dañ ko gën a baral da di nag doomu aadama fa muy réccoo bis bu ne day fekk réccu di wees day bàyyi ba jaan romb mu topp te watit way dóor xamoo ndax déwén dana la fi fekk wala déet kon nag farlul góorgóorlul ñaanal yàlla baralal say jéego ci yàlla defal la tawfiq ba liñ doon séentu ci weeru koor nga am ko yàlla suñu borom defal na ko muy laallakum tattaquun ak li nga xamante ni mooy texe tàbbi ajjana ñoo ngi woon ci suratul mujadala yegg si woon nañ ci laaye juróom benn tey ñu war a tàmbalee bi xusni tawfiqil baari ci laayey juróom ñaar sunu borom a ngi wax audu billahi min alshaytan arrajim bismillahi arrahmani arrahim ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير سنمرام سبحانه وتعالى شيء لا يجمع جوجو wala ci laaye yu màgg yooyu ci suuratul mujaadala wala mujaadila sunu borom mi ngi ñu doon leeral nit ñi nga xam ne dañuy diingat yàlla akub yonenteem di foye alquran ak njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunu borom ni ñooñuy alku nañ yàqu nañ comme ñi leen jiitu woon nañu defoon ba alku ba yàqu ndax yàlla kat wàcce na ci am njub lu leer loo xam ni ku bëgg gindeeku bu ko toppee baax ku ko topp rek mooy kii sànq sunu borom mu ni keroog bi may def torox taage jooju di ko jëmale ci ñoom bis lay doon boo xam ni ñoom ñépp sunu borom dana leen dekkal taxawal leen ci benn place ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى سونو بارام موني ني لاني دون جيف مي فاي لينكو موني احصاه الله ونسوه يالا خاتم نا لب بند نكو واتكو ونسوه نيوم ني فاتيكو لول نك لونيت نان سي باي خيل سي سونو يفي بوب بريوانا موس ay njaaxum ak i tërëf ak i rëcc rëcc yoo xam ne gaar nanu lu sàggan ba fàtte koo tuub te loola wóorut ndax su boobaa fàtte gi ko fàtte mën la laa jural musiba sunu borom ni wallahu ala kulli shay'in shahid sunu borom yàlla moom lépp fekkee na ko lépp xam na sunu borom alam tara xanaa defoo taxaw seetlu alam tara xanaa seetlu woo ni anna allaha yàlla day sunu boroom yaalamu aji xam la maa fi samawaati mboolem li ci asamaani juróom wa maa fil ardi ak mboolem li ci suufi juróom-yaar yi dafa bokk ci li tax nit mën a ci mbiram sunu boroom mooy mu xam ni yàlla ci boppam du malaaka du jinne du nit waaye mooy yàlla yàlla mooy lan yàlla mooy koo xam ni nattukaay yi nga xam yépp boo ko ci natt rek du sotti ndax melut noonu yàlla mooy koo xam ni lépp loo xam ni dégg nga ni mën na ko wala am na ko rek buñ ko am ñëpp moo leen ko may kon xel war naa mën a nangu mu am ca lu ëpp li ñëpp xam ñëpp foog yàlla mooy kan mooy ki nga xam ni lépp loo xam ni doomu aadama rëy na ca xelam rek loola lu woyof la ci suñu boroom ndax moom ku xam la yàlla mooy kan mooy kooku nga xam ni ab xam-xamam dafay yaa lool asamaani juróom-ñaar suufi juróom-ñaar la ca biir ak li ci diggante bi amul lu ko fa umb wa ma tasqutu min waraqatin illa yaalamuha xobu garab wu ni ut yàlla mu ni xam naa ko wala habatin fi zulumati l ard tepp woo xamante ne dafa tabbi ci biir lëndami suuf si wala ratbin la tooy ci ay garab ak yëf wala yaabis li wow ci ay garab ak yëf illa fi kitaabin mubin lu dul lépp ma nga ci téere ba gis nga fi mu ne nit yeeg jinne yeeg malaaka yeeg rab yeeg njanaaw yeeg njaay àll yeeg mboolem lu nekk ci kaw suuf rek sunu borom xam na ko la ne ca kaw sunu borom xam na ko dara ump ko loolu nag ak mag foofu la mën a yem sunu borom ni alam taalam alam tara xanaa gisoo ni anna allaha sa borom yàlla yaalamu aji xam la maa fi samawaati mboolem li ci asamaane juróom-ñaar wa maa fi l ak mboolem li ci suufi juróom-ñaar maa yakunu du nekk mukk min najwa ci ab boo xam ni salaatatin mi ngi dox ci diggante ñetti nit illa huwa lutul sunu borom yàlla rabiuhum moo leen ñeenteel wala xamsatin amul juróom yuy déeyante illa huwa saadisuhum lu dul suñu borom moo leen juróom benneel wala adna min dalik du nekk lu gën a suufe lim ab ñett mbaa ñeent wala aksar wala lim bu ëpp ñeent mbaa ñett mbaa juróom illa huwa maahum lu dul suñu borom ma nga ànd ak ñoom aynama kaanu fu mën a nekk laaye ji day bàyyiloo xel doomu aadama raqabatullahi shadida ala hada almaxluq alinsaniyi daif saytug suñu borom du tar gi nga xam ni du maye dara du bàyyi dara mu jàll gi nga xam ni dafa saytu doomu aadama sëpp ko nga xam ni daraam du rëcc daraam du rëcc suñu borom mu ni xam leen ni maa yakunu du nekk mukk min najwa ci ak déeyante déeyante mooy ñoo xam ne ña nga petoo najwa di petoo di déeyante salaatan yi ñu nekk ñetti nit illa huwa rabiuhum lu dul suñu borom moo leen ñeenteel ñeenteel ga nag du jëmmam ja waaye ca xam-xamam bala maaya gi nekkut maayatu zaat waaye maayatul ilmi la خم خم سنو برام بمعنى سنو برام مطلع عليهم يسمع كلامكم وسركم ونجواكم ورسله أيضا مع ذلك تكتب ما يتناجون مع علم الله به وسمعه له سنو برام أي ملاكا من ينجي بند سنو برام مم تيت ما جاي جسمك amul ñu toog di déyante moo xam dañuy jëw moo xam dañuy wax lu seen yoon nekkut moo xam dañuy pexe am pexe moo xam dañoo bëgg a tuumaal kenn moo xam dañoo bëgg a nas ak caay-caay moo xam sax lu baax la ñuy waxtaanee suñu borom mu ne buñ dee ñett illa huwa rabi'uhum yàlla moo leen ñeenteel ca xam-xamam ba na leen wóor ni la ñuy wax umput suñu borom wala xamsatin buñ matee juróomi nit illa huwa rabiukum sadisukum lu dul sunu borom moo leen benneel wala adna min dalika limba bu ko yeesee bu yeesee ñett wala aksar wala mu nekk lu ko illa huwa maakum lu dul sunu borom yàlla mi ngi ànd ak ñoom aynama kaanu fu mën a nekk summa su ngeen nuppee ca waxtaan wa summa bu ngeen defee la ngeen di def ba nuppi summa bu addina bi tukkee ginnaaw loolu yu nabbi'uhum yàlla dina leen xabaare bima amilu ca lan doon jëf yawma alqiyamati bis yawma alqiyama diw sàngam yaag diw wala yaag diw ak diw wala yaag diw ak diw ak diw bis sàngam ci waxtu sàngam toogoon ngeen barab sàngam doon jëw diw waaw wala déet bis sàngam toogoon ngeen ci barab di wax lu seen yoon nekkul waaw wala déet bis sàngam toogoon ngeen di nas pexem caay caay waaw wala déet noonu lañ la koy toppee ba jataay yi nga xam ni jataay yu jaaduwul yépp daal di jeex wa kadalika tamit jataay yu baax yi ah yow de bis sàngam toogoon nga ca barab sàngam bi def nàngam ah yàgg di ak diw ak diw toogoon ngeen la leen taxana toog mooy seet seen mbokkum jullit mi nekk ci ay problème nu ngeen ko ca génnee ah moom baax na ci balance yu wala jëm yaag diw ak diw ak diw ak diw bi sàngam doon ngeen réunion di wax ci nan la ñuy def ba ah nangam nangam gën a baax muy mbirum l'islam waaw boobu di ci balance yu baax yi la jëm kon noonu lañ koy toppee lu baax ak safaan sunu boromu ni inna allaha yàlla day bi kulli shay'in alim aji xam la xam goo xam ni dara ump ko bi kulli shay'in ci bépp mbir mbokk yi imaamu ahli sunnati wal jamaa ahmad ibnu hanbal dafa def benn seetlu ci aaya ji wax ci wax ju am solo imam ahmad nee na افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم muy lay wan ni fi ne sëpp sëpp bi la suñ borom sëpp kat tar na aay ji yàlla da koo tàmbalee xam naa jeexalee ko xam naa alam taalam alam tara anna allaha yaalamu yàlla xam na fële mu andi siga mubaalaga alim dara rëccu ko ci moom suñu borom ñaari ilmu yii de war naa tax ku nekk góorgóorlu bàyyi xel bu baax ay jëfam ay waxam saabu wéetee mbokk yi ñu bari ci ñun tey ndeysaan da ngay gis benn waay boo xam ni ab jullikatu guddi la ndeysaan bu ñuy naafila ma nga ca mbooloo ma wala ma nga ci di naafila jàngkatu alquran la wax dëgg yàlla bi mazharihi da koy naw da ngay gis muy góorgóorluy jéem a sellal lu man ndekete moom mboolem lu mu liggéey rek mu ngi mel ni kallati naqadat gazlaha min baadi quwatin ankaasa daa yendoo yen di ràbb ku ko ay waay diw moo mën a ràbb diw ràbbam bee rafet waaye mu dem ba tàkkusaani suuf daal mu daal di jàpp ci cat la kareet tëri lépp perte daal di commencé waat loolu muy dal lu ëpp ci ñun mbokk yi da ngay gis koo xam ne ndeysaan jaamukatu yàlla la góorgóorlu na ndeysaan ci wàllu lekk sax fi mu nekk nii boo ko andi doon pot pot yooyu nga xam ne yàpp lañ ciy def di ko importé moom danaan lii daal dalul sama xel pour lekk ko nga ne ko sa waay lii dagana na mu ne déedéet comme xaw ma fuñ ko rendeeg luñ ko maanaam daal dem na ba sellal gémmiñam sax ci yenn lekk yi ndekete lu gën a yomb loola fi mu nekk nii ñu ko të loola mooy lan toog di jëw di yàq de ab jàmbur di déyanteeg di kobasanteeg ah di yëj ci nit ñeeg yooyu ay yëf yëfaan la yoo xam ne ndeysaan mi ngi yàq sa jaamu yàlla yëpp xabita anhum ma kaanu yaamaluun lañ doon jëf yëpp daal nañ koy yàq moo tax bàyyil xel ni déeyoo yeeg petoo yi bu dul jàmm lan cay wax joo xam ni benn jëw wala waxal nit safaan amu ca su boobaa loolaay li baax bu ca amee ba yow nga bañ caa dugg est-ce que nga ni nit dana màbb ay jëfam la tax su ni maanaam jëf yi wóolu nañ ko wóolu def nañ ko rek yàlla nangu na ko kenn du sonn waaye problème bi mooy da ngay am jalut jëf nga bàyyi ko mu yàgg fa lool ndeysaan benn bis rek nga xëy rek daal di koy yàq mu yàq fekk yëgoo ko sunu borom mu ni inna allaha sa borom yàlla day alimun aji xam la bi kulli shay'in ci mbir yépp moom sunu borom lii day wane ak maayaam muy maayatil ilm wala maayatul ilmi xam-xamam foo mën a nekk ca néeg ba ca ëtt ba ca kër ga ca saal ba ca jàngukaay ba tukki nga teew nga lépp sunu borom yàlla moom mi nga xam say yëf moom dara ubb ko sunu borom mu ni alam tara xanaa gisoo ba léegi ila alladina ci gaa yooyee nga xam ni nuhu dañ leen a tere tere woon anin najwa ci peto dañ leena a tere woon petoo di déyante ak ay wax summa yauduuna ñu daal di wëlbatikuwaat dellu ca limaanuhu anhu la leen seen borom tere woon ñu daal di cay delluwaat ibn xiyaan wala muqaatil ibn xiyaan ak abi najiix ñu jëlee ko ci mujaahid nee nañ yonent bi sallallahu alayhi wa dafa am ay accord yu mu siñante woon ak yahud yi bi mu ko siñantee ak ñoom léegi yahud yi bëgg tiital jullit ñi suñu séenee ay jullit yuy ñëw rek nga daal di seen ñaari yahud daal dem beru fële di kobas di wax di la gës di la xoolaal xam nga loolu dafa mën a tiital nit tey boo doon romb am ñaar ñoo xam ne ñoom ñëpp ñu ngi siggi xool la ba nga xool leen ñu daal di sëggaat nekk ca di déyante ba mu yàgg xool la ba mu ñu sëggaat di déyante looy xalaat da nga yaakaar ni ci yow lan nekk loolu day tiitalaate moo tax islam di ko tere su ko defee loolu ay xadiit ñëw na ci yu bare bari yoo xamante ni dafay tere loolu yonent bi di ko jàngale sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk na ci xadiit yi su ngeen nekkee ñaar walla ngeen nekk ñett loolu nag misaal la rek bu ñaar ña petoo di déeyante bàyyi ka ca des lu dul dañ ca am digal gis nga fi mu nekk nii ñett buñ nekkoon ba mu yàgg ñaar ñi daal di beru fële di waxtaan seen waxtaanu bopp loolu daganut de balaa dagan da ngeen ah sa waay diw daal lu ma ko bëggoon wax am naa ci ndigal la mu ne la waaw gis nga bu nee la déedéet sañoo ko da bàyyi ba ngeen jukki jotaay boobu loolu moom ñun moom du kulli saraaxa jëfewuñ ko dangay ngay jékki toog ba mu yàgg nga am aajo ci sa loolu nag waxuñu mbooloo yu bari yi nga xamante ni daanaka nit la muy wax sax mën naa bañ a concerner ñeneen soo gisee ñu tànn ñaar ba ñett soo fekk mbooloo ma tuut na tuutaay goo xam ne bu doon ñetti nit la ñaar ña beru kenn ko day daal di wéet automatiquement xelam loolu lay xalaat moo tax tey su fekkoon ñett dañoo ànd nga dem ba mu yàgg nga am loo bëgg wax kenn ki te concerné wul ka ca su boobaa dañuy ñaan ah sa waay man de daa am loo bëgg a wax kii am naa ci ndigal mu ñu la waaw nga doog a def waaye soo defee te tàgguwoo ko am nga bàkkaar su nee la amoo ci ndigal tamit boo ko defee am nga bàkkaar parce que loolu mooy njàngalem islam dana dugg ca biiram ñaar ñi nga xamante ni ñett ñi toog di waxtaan ba mu yàgg ñaar ñi ci des jël wenn làkk wuñ dégg ñoom di ca waxtaanee bàyyi kenn ka déedéet loolu tamit islam da koy tere xanaa ñoo am ci ndigal maamu woor leen ni kii moom faalewut loolu sax loolu moom defu ko sax problème xam na ni ñoom jëw ñu ko waxuñu ci leneen waaye bu dul loolu yég leen ni mbokk yi daganut sunu borom subhanahu wa taala mu ni xanaa seetluwoo ila alladina ci gaa ñi nga xam ni nuhu anil waa dañ leen a tere peto summa yauduna ñu daal di delluwaat lima nuhu ca la nga xam ne loolu lañ leen tere woon ñoom di ko def yonente bi tere leen sallallahu alayhi wa sallam waaye ñu bàyyi ko diir daal di delluwaat suñu borom mu ne wa ñoo ngay déeyante bil ismi ci lu leen di jural ay bàkkaar wal udwaan ak jalgati ci kaw jullit ñi mooy di leen jëw ak di leen waxal ay wax yu safaan wa maasiyati rasul ak di mooy ndigale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon dañ doon ci loo am ni bàkkaar a ca nekk dañ cay mooy ndigalal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye dañ cay euh, mooy yonent bi sallallahu alayhi wa di ca am ay bàkkaar it nag sunu borom mu ni wa ida jaauka suñu la dikkalee wa ida jaauka gaay bu ñu dikkee ci yow xayyawka dañu lay nuyu bi maalam ci loo xam ne yuhayyika bihi allah yàlla nuyoowu la noonu ñoom bu ñuy yegsee nga yaakaar ne dañu laa nuyu fekk ñoom ñu ngi lal ay ndëgg sërëx ndëgg sërëx yi mooy nuyoo mooy assalaamu aleykum ñoom nag bu ñu yegsee dañ naan yorant bi assaamu aleyk loolu mooy yàlla nga dee assaamu alayk mooy yàlla na nga dee moom ngeen gis alxabatu sawda yashfi kulla shayin illa assaam assaam mooy dee assaamu alayk jullit ñi yaakaar ni salaamu aleykum lañ wax moo tax yàlla lim ni xam-xamam yaatu nga xoolal jullit ñaa ngi dégg baat bi xool yow yaa ngi dégg dégg li ngay dégg sax xamoo lan la yaa ngi dégg sax ci xamoo lan la assaamu alaykum mooy yàlla na ngeen de sunu borom mu ne wa ida jaauka buñ la dikkalee xayyawka ñi ngi lay nuyu bi maalam ci loo xam ne yu xayyika bihi allah yàlla nuyoowu la noonu benn bis ndeysaan yonent bi dani saxaaba yi dégg ngeen gaa yi liñ wax saxaaba yi ne ko luñ wax mu ni dañuy dañ ni leen alaykum saxaaba yi bëgg a mer bëgg a xëtër xëtër yonent bi waa aleykum rek mu jeex waa aleykum ak yow ak yow wala fi dañuy wax ni fayum saaga naara ci man maanaam fayum saaga ab naara ci man naar fi ne loo ko wax ci lu bon ba naar dee naar mun la ak yow ak yow ak yow mu jeex kon yow benn yow def nga lu bon am nga bàkkaar wax nga lu bon moom nag defut lu bon amut bàkkaar li nga ko wax la la delloo rek mu jeex te dagan na li nga ko wax la la delloo te te du ca nag te du ca jaar wa aleykum ak yow Aïcha nag ndeysaan benn bis mu daal di dégg loolu moom yëmut ci ak yow bu ne ak yéen yàlla na ngeen dee alku kutus yàqu di lim di teg rek gone la woon te it nag ab soppeem lañ doon xas yenent bi ni ko Aïcha yàlla bëggul kuy ëppal ci ay tontu tee ngaa yem ca lan waaleykum rek te xam ni yàlla dana nangu suñ bés te ñoom seen bés du nangu ñoom li ñuy ñaanal yonent bi yàlla du ko nangu te yonent bi li muy ñaan di ko këpp ci seen kaw yàlla dana ko nangu ak yow yàlla na nga dee mu ni ko ak yow yàlla na nga dee jëdu nangu te ak yow dana nangu bu soobee yàlla moo taxit ñoom ñépp dee nañ ba wow dee yu bonte ñaaw ndax dee moom mënta ñàkk waaye dee gu bonte ñaaw moom manoon naa ñàkk kon ñu bàyyi xel ci loolu su ko defee assalaamu aleykum ñaar ñaan gu la waaye ñun boo dikkee fii salaamaaleykum moom bu du nuyoo déedéet salaamaaleykum moom fajut dara dara dara dara tekkiwut dara maanaam baat bi man xool naa ko ci làkku arab na li ma déggul arab lu bari na xam naa moo tax salaamaaleykum maanaam baat yi xool naa xool xool xool amul lu man a tekki xam nga léeg-léeg sax olof dana yàqu baat mbaa mu wax naka sudut noonu nga dem xoole ku mu am lu mu tekki maanaam affaire yi doo xam lu mu doon salaamaaleykum affaire bi amul dara dara dara lu mën a tekki de tekkiwul dara lu am xorom bu ko defee asalaamaaleykum mooy nuyoo wala salaamualeykum bonjour du nuyoo bonsoir du nuyoo ak xeeti nuyoo yi ngeen di nuyoo yëpp benn du ci nuyoo loolu jàmm sant la maanaam bonjour ak bonsoir ak xawar yu seen yooyu ñuy wax yëpp ci làkk làkk woo dem même wolof yeeg déggal séeréer yeeg ñeneen ñeeg kenn ku ci nekk la ngay wax. yëgal di du nuyoo jàmm sante la salaamualeykum mooy nuyoo jàmm ngeen yendoo jàmm ngeen fanaanee mbaa jàmm yooyu yëpp ñuy faral di wax ca kaw ga yooyu daanaka du nuyoo de jàmm sant la indalaay baarikàlla loolu lépp daanaka du indalaay sax moom du arab <laughs> indalaay moom du arab baarikàlla tamit arab alhamdulillah la woon tabaarakallah nga gis nga maara day taali xam ngeen maara day taali mooy lan maara day taali mooy lan ci wolof lu muy ci arab maa raditu alayhi loolu la olof dafa mën a yàq mën a yàq ba nga xam ni te olof dafa taayal daal xam nga ne ordinateur yi loolu ngeen tuddee raccourci olof moom ku ko dàq def raccourci amul moom daal yoon bu gën a gaaw rek maa raditu alayhi maanaam nit di ko wax la musiba nga ni kullaay maa raditu alayhi loolu di moom musiba la loolu di moom doy na waar façon waxin woowu ah maara day taaliba yow de waxoo jàmm gis nga maa raditu alay alhamdulillah tabarakallah yooyu yëpp ay baati arab la kon ñoom bu ñu yegsee dañ lay nuyu bi ma lam yuxayyika bihi allah ci noo xam ne sunu borom nuyoo wala noona waaye wa yaquluuna ña nga naan lawla yuadibuna allahu lan moo tee su fekkonte ne yàlla def nuy mbugal bi ma naquul lan moo tee yàlla mbugal ni nit ah, yàlla dégg na lépp sunu borom nee na dégg na lépp te ñun nee nañ ko yàlla na nga dee yàlla dégg ni ñu naan ko yàlla na nga dee ba pare te yàlla rëyu ñu tontu bi mooy la tontu bi mooy la yàlla kenn du ko dikke li muy def tontu bi mooy yàlla kenn du ko dikke li muy def maanaam yàlla lu tax deful nangam yàlla lu tax. yàlla bu fekkoon ne li ngay wax dëgg la lu tax tawul ay xeer bàyyi ko ci asamaan yàlla lu tax boolewul malaak ay malaaka ñu ànd ak yonent bi yàlla lu tax deful nangam yàlla kenn du ko wax li muy def la yusalu amma yafaal wa kum yusaluun kenn du ko laaj li muy def te ku def mu laaj la lu tax nga def la nga def sunu borom mu ni wa yaquluuna ña nga naan lawla yuadibuna allahu lan moo tee wala su fekkoonte ne yàlla daf nuy mbugal kon lu tee mbugaluñu bi ma naqulu ci wax ji ñuy wax yonent bi suñu borom mu ni xasbuhum doy na mbugal jahannamu sawara jahannam xasbuhum doy na leen bu ñu demee àllaaxira jahannamu sawara jahannam yaslawnaha dana leen fa ñaas lakk leen fa fa bi sa bon na almasir mu jëntal loolu lu doy waar yaa ngi wax say wax ñu ne la yow kat dee moo la tee tàbbi sawara dee rek rek rek rek moo tee nga tàbbi sawara kon ñu bàyyi xel ci yu mel noonu yàlla subhanahu wa kenn du ko wax lan lay def moo tax ci loolu nag bokk na ci njàngaley lislaam ahlul kitaab yi kenn du leen nuyu assalaamu alaykum déedéet buñ la nuyoo borom xam-xam yi jiwee nañ ñenn ñi nee bu dee ñoom ñoo wax salaamaaleykum moom fay leen waaleykum salaam maanaam ñoom buñ nee salaamaaleykum borom da nga ne mu jeex waaleykum nga daal yem foofu su fekkente ni nag yeneen borom xam-xam yi dañ ne déedéet salaamaaleykum moom buñ la ko waxee rek dellool waaleykum salaam. waaye bi kenn werante wut mooy moom doo ko wax salaamaaleykum boobu kenn juyewu ci kenn juyewu ci ñi wax ne bu ñu la waxee salaamaaleykum da ngaa war a tontu bokk na ci wax ji ñuy tegtaloo joo xam ñu ngi ko toxalee ci Abdullah ibn Abbas ku mel ne Cheikh Albani rahimahullah mi ngi koy nettali ci benn téereem bu am solo bu ñuy wax nuzumul faraid téere la boo xam ne siiwut lool waaye téere bu am solo la ci biir téere Cheikh Albani yi ndax njàngale yu am solo ya ca nekk. boo demee wax jooju ma wax bokk na ci lam fa nettali suñu borom mu ni sawara jahannama doy na leen fa bi sa bon na almasir fa nga xamante ni fa lañ nar a mujj suñu borom mu ni yaa ayyuha alladina amanu ey yéen ñi nga xam ne gëm ngeen seen boroom tey déglu ay santaaneem tey wattu di ko ay cereem ida tanajaytum su mënta ñàkk ba ida tanaajaytum bu ngeen dee déyanteeti wala ngeen di petoo falaa tatanaajaw bu leen petooti bil ismi ci luy jur bakkaar wal udwaan ak jalgati ci ay mbir wa maasiyati rasul ak di moy yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñaat faw léeg-léeg di nga am loo xam ni petoo moo ko mën a faj léeg-léeg di nga am mbir yoo xam faw nga déyanteeg ka ngay wax sunu borom mu ne yéen ñi gëm yàlla su mënta ñàkk fala tatanaajaw bu leen petooti bil ismi ci wax luy jur bàkkaar wala odwaan wax luy jur jalgate ëppal wa maasiyati rasuli ak di mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ngeen def mooy watanaajaw petoo leen ngeen deyoo bil birri luy jur ak mbaax wattaqwa ak luy jur ragal yàlla wattaqullaha ngeen ragal seen borom alladi mi nga xam ne an ah, ilayhi tuhsharuun bu ngeen dekkee ah fa moom ngeen di dekkee ci mbokk yi aaya ji dafay wane ni saa bu ñu wéetatee ba nar a waxante ay baat nañu wattandiku di waxante baat yoo xam ni day tudd jëw wala wax ci sa mbokkum julit wala wax ci moom lu ñaaw wala tiital sa mbokkum julit sunu borom mu ni innama najwa petoo gii ñu di leen tere min alshaytan ci mbiri shaytaane la bokk li yaxzuna alladina amanu ngir ñuy tiital ñi nga xamante ni dañoo gëm yàlla waaye wa laysa bi darrihim ñu mënuñoo lor ñi gëm yàlla tus dara illa bi idnillah lu dul loo xam ne sunu borom moo ko dogal kon météo googa mën naa tiital ku gëm yàlla waaye nag lor munu caa am lu dul yàlla moo ko dogal te xam ngeen ni xam nga ñaar toog ba mu yàgg wala ñett toog ñaar ñi dem beru di wax ay wax di xool seen morom saa saa sax ñu reetaan wala yu demee noonu loola bàkkaar bu rëy rëy rëy la bokk benn li ngay def islam da koo tere pointé la bàkkaar foofu ñaar yaa ngi tiital sa mbokkum julit pointé nañ la bàkkaar foofu ñett yaa ngi mooy yonent bi pointé nañ la bàkkaar foofu kon musiba yu rëy rëy rëy moo cay daje imaamu ahmad nee na toxal nañ jële abdullah ibn masud mu ne yonent bi nee na ida kuntum thalathatan fala yatanaja ithnaani duna sahibihima fa inna dalika yuxsinu mu ne bu ngeen nekkee ñetti nit bu ñaar ña petoo di déyante bàyyi kenn ka ndax loolu da koy tiital imam abdirazaq mu jële ci abdullah ibnu omar mu ne yonente bi ida kuntum salatatan fala yatanaja asnan duna thalith illa bi izni fa inna zalika yuxsinu bu ngeen nekkee ñett bu ñaar ña di déyante bàyyi kenn ka lu dul dañ caa am ndigal ndax su ngeen ko defut loola mën na koo tiital kon mbokk yi ñu bàyyi xel njàngale moomu kër mbooloo ma la lu mën a doon petoog déyante saa demee ba ma ngay jural kenn muy xalaat te fii may wax ak yéen daanaka illa man rahima rabbuk jullit yépp a koy def léeg-léeg mën naa dugal nit ki ci kàmb ak njort damay wax ni sa mbokkum jullit doo ko ci kàmb ak njort tey bu fekkee da toog seen sa mbokkum jullit ñaar toog seen kenn ñu ngay wax di ko xool ak di ko may ba ak di ko catal loola da koy tiital te mën na koo njortuloo njort bu ñaaw moo tax sunu borom subhanahu wa taala mu ni innama najwa min ashaytan petoo googu jëfi seytaane la kon jàppal ni képp ku koy def rek ab seytaane la na xam ngeen ni seytaane dong mooy fo ci bagage seytaane seytaane nit mooy fo ci bagage mina shaytaani mi ngi bàyyi koo ci shaytaane li yaxzuna alladina amanu ngir tiital ñi nga xam ne ñoo gëm suñu borom waaye walayta déet bi boorigim shay a di lor ñi gëm yàlla ci dara illa bi idnillah lu dul lu suñu borom dogal suñu borom ni wa ala allahi ci sa borom yàlla falyatawakkali na wéeru almuminuun ñi gëm yàlla loolu mooy wane ni li ñu lay petoog yooyu yëpp bul ko tiit waaye tiital sa borom defal la borom bi doon wax alladina qala lahum nnaas inna annaasa qad jamacu lakum faxshawhum fa zaadakum imana yow de gars yi yow la ñuy fexeel yow de ci yow lañ nekk yow de soo ma sa place bi di nga fi jóge yow nangam sunu borom ne fala taxshaw nnaasa waxshaw nii bu leen ragal di ragal leen man yàlla fee moom fa zaadagum imaana daf leen a gën a dolli gëm yàlla ah diw de moom xam naa ne moom boo moytul ay mbiram diw de moom nangam nangam diw de moom nangam xeeti yëf yëfaan yooyu nga xam nit ñi dañ koy faral di tiitalaate sunu borom mu ni bu leen si tiit waaye na ngeen ragal seen borom kese sunu borom mu ni yaa ayyuha alladina amanu ey yéen gaa yi nga xam ne gëm ngeen seen borom ida qiila lakum buñ leen waxatee tafassaxu puus leen dannatu leen fil majalisi ci palaas yi fafsaxu mu ni dannatul gaaw sa mbokkum jullit bu ñëwee fekk jataay gaa yaa ngi toog ca basang ba ca moket ba ca jàkka ja ca mbooloo ma ca xalqa ba ca darsa ba ca lépp ca kër ga ah, am na ñoo xam ne ndeysaan dañoo soxora soxora soxor ba soxorante ay palaas loolu nag ci jikko ñaaw yi la bokk am na koo xam ne fi ne bu seenee mbokkum julitam muy ñëw mi ngi am een ci xolam sax ngir mu toog ci barab sàngam ba ci biir oto ba ca basang ba ca classe ba ba ca taabal baaba ba ci lépp da ngay gis koo xam ne sum waay day toog occupé place boo xam ne ñaar mën nañ koo occupé jubluwu ca lenn lu dul rek xatal place ba ñoom diw duñ toog rawatina ne ñi nga xam ne ñoom feebari xol nit ñi daf ci am ñoo xam ni yàlla daf leen a nattoo ay góom dafa nekk ci seen xol maanaam ñoom ci seen jëmmi bopp li ñuy def xam nañ ni baaxut waaye mënuñu ko ba xaw ma li may wax leer na wala leerut gis nga am nit yoo xam ni ay góom ci boppam góom ay góom moo am ci seen biiri xol maanaam waxuma la sax ñoom li ñuy def bon na waaye ñoom ñoo la gën a xam ne nit ñu bon lañ loolu dafa am malgré que nit ki mën a nekk jullikat woorkat jaamukat yàlla waaye xol bu bon lay yore loolu baaxul xol xol dañ koy yar xol dañ koy tàggat xol dañ koy toppatoo xol dañ koy nettoyer dañ koy laver ba mu set saa saa di nga gis ndeysaan koo xam ni yàlla xam ne ni moom sax moo la gën a xam ni xolam baaxul loolu day am sax da ngay dégg ndeysaan ñi yàlla baaxal dëgg loolu la ñuy wax dañ naan man xam naa ne man problème xol laa am man damay wax ni gis nga ki wax loolu ci moom laa gën a am yaakaar sax ci ko ki ko denc ci xolam li ko waral mooy damaa feebar de dimbali leen ma mooy genn wàllu nar a wér nangu ne da feebar mooy genn wàllu wér su ko defee kon am na yooyu mën naa dugg ci añaan soxor siis bon yooyu jikko nga xam ne jullit du ko jikkoo sun borom ni ya ayyuhal ladina amanu yen ñi gëm yàlla ida qila lakum bu leen waxate tafassahu dandatu len fil majalis ci palaas yi fafsahu na ngeen dandatu yafsaxu llahu lakum a yàlla yaatalal len na nga yaatal yàlla yaatalal la fafsaxu yaatalal say mbokk yafsaxu llahu lakum yàlla yaatal la te foog naa yaatal gi la di defal moom nga gën a aajowoo ko ci ngay defal nit ñi kon li nga joxe liñ la fayee ko gën li wala fii mu la jële fa la ko jëmee ko gën ci yow moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ah wa ala mu'sirin yassara allahu la alayhi fi dunia wal axira ku fekk ku nekk ci ay jafe-jafe nga yombalal ko ko yàlla dana la yombalal ci adina ak ci àllaaxira mu ne wallahu fi awni alabdi ma daama al abdu fi awni axii yàlla taxaw na temm ci dimbali la fi ak taxaw nga temm ci dimbali sa mbokkum julit su borom ni fafsaxu yaatal leen yafsaxu llahu lakum yàlla yaatal leen sahaaba yi daf ci am ñoo xam ni ndaysaan xër gu ñu xër ci yonent bi sallallahu alayhi wa suñ masaan a toog nii wër yonent bi am ñu yéex a ñëw da ngay gis koo xamante ni dalay lay xaw a soxoree jege si jege yonent bi sallallahu alayhi wa loolu nag du ñaaw jikko ca ñoom du bon ca ñoom ndax saxaaba yi ñu sell lañ ci bi shahadati rabbihim waaye lim nekk muy xir ci yonent bi ba doo ci nangoo xajal kenn su ko defee da ngay bëgg ku ñëw na toog ca gannaaw ndax maa la fi jiitu yàlla mu ni yëf yi du noonu de yaatalal leen yàlla yaatal leen amma jëmmi nag yëkkati nit pour toog nag ah déedéet yonent bi ne laa yuqimu la laa yuqimi rajulu rajula fi min majlisihi fa yajlisa fii du kenn yëkkati sa morom teg fële pour yow nga toog ca place ba walakin tafassahu wa tawassahu yaatal leen te ngeen danatu kon dafa jaadu aji gëm yàlla mu yar boppam ci buntu bu mel nii sunu borom mu ni suñ leen waxee yaatal leen yaatal leen yaftahi llahu lakum sunu borom dana leen yaatal wa ida qiila buñ leen waxee unsuzu nel ñokket mbir mi bu jaree ñokket jóg fansuzu na nga jóg am na ci borom xam-xam yu wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa toogoon saxaaba yi war ko waaye magi muhaajiruun yi daal di agsi nag ancien muhaajiruun yi paa yi nga xam ne ñoo njëkk dara dar yonent bi laa sakka ni ñooña position bi ñu am ci yonent bi keneen du ko am ah yonent bi daal di toog yaakaar ni ñii dinañ am xel gone yi dinañ am xel xajal mag ñi ah goney saxaaba yi daal toog rek moom gaa yee taxaw yonent bi muñ ko muñ mënu koo muñ sallallahu mu ñu leen eey diw jugal diw jugal effectivement parce que kat ñooñu maqaama yan am ak nan mel ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak barab bañ gaaya toog am nay borom bi loolu amee ña yonent bi wax jugal kenn ku nekk commencé yëg ñag yi xool yàlla mu ne wa ida qiila ansusu même bu mbir mi jëree jugal fan susu jugal am na ñu ne unsusu mooy départ leen jëm ca xare ba jugal dem xare ji wa ida qiila bu ñu leen waxee unsusu ñokket jóg leen lil qitaal comme ni ko qataada waxee ah suñ leen wooyee ci aw yiw jugal nga dem wuy loolu la qataada wax abdullah ibne abbas mu ni fafsahu yafsahi allahu lakum fi majalisi alharb ay inhadu lilqital jóg leen dem xeexi mu ni su boobaa jóg loolu nag ay teggin ci jataay mi ngi ci islam dafay tere nit ki ñëw fekk mbokkum julitam toog ci place ba noppi nga ne ko ñokket jugal islam day tere loolu lu waral loolu parce que dañuy bëgg moom mu jox la ko ci coobarey bakkanam ñaareel bi bu dee nag lii yonent bi defoon nag ci saxaaba yi bàyyi leen xel ni saxaaba yi ña xam ni ñoom ñooy ña ci gën a mag am nañ ci ay martaba loo xam ni keneen du ko am moo tax am na yenn yoo xam ne dañ ko sañ keneen du ko sañ loolu firnde ba bokk na ci mooy la suñu borom waxoon ci suñu saar wee wees laa yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qaatal ñaareel bi mooy gone ci boppam bu toogee ba mag ñëw moom moo war a am xel may ko waaye du mag maa koy yëkkati mbaa di ko bañal waaye gone moo war a am xel jóg may mag allahuma lu dul mu nekk loo xam ne xëy na li wolof yi naan la bukki bëgg la mag la bar bëgg la la la la bëgg la bar bëgg bu dul place ba xam ne moo war a dara imaam bu dul place bi war a dal imam magum jëmm sàggan sa kër ba xale bi jiitu la ca sàppe bu njëkk ba ca côté ba nga ñëw xëcc ko da nga kaa tooñ da koo tooñ de loolu na leer bu dee fa dara imam nag moom sañ nga ko bu dee yow bokk nga ci ñi ulin nuha yi fa dar imam daal fukki nit yi dar imam juróom fii juróom fee yi dar imam waaw yooyu moom ay tànneef la ñuy doon waaye bu dut loola bu mag mi sàgganee ba gone gi jiitu ko ci sàppe bi bu ko xëccee da kaa tooñ da de loolu dañ ci bàyyi xel beneen bi ci des mooy yonente bi sallallahu alayhi wa dafa jàngale ci boppam ñi nga xam ne ñoo fare ndaw ñu wormaal ñi fare mag ñi fare mag ñu yërëm ñu nekk ay gone sunu ma mu ni fa ida wa ida qiila nsuzu bu ñu leen waxee jóg leen fan suzu bu dee jihaad la sax ngeen dem yarfa illahu sunu borom yàlla dana yëkkatil alladina amanu gaa ñi ko gëm walladina utul ilma ak ñi nga xam dañuy sàkku ay xam-xam darajaatin ay daraja yu kawe kawe kawe kawe loolu jëf la ju fort ca sunu borom moo tax sunu borom dana leen fay lu rëy bokk na ca lam leen fayee mooy comme da ngeen di daje ci jotaay yonente sa sallam di sàkku fi xam-xam am na xeetu oyof ak dégg ndigal goo xam ne soo ko defee yàlla dana yëkkatil ay daraja ñi gëm yàlla waaye ñi sàkku xam-xam nag ñu beral leen loxo wallahu sa borom yàlla xabirun aji dañ ci kumpala bi ma taamaluun ci mboolem lu ngeen def yaani bi ma taamaluun xabir aaya ji nag mbokk yi borom xam-xam yi bokk na ci liñ ci sukkandiku di wane ni ndekete xam-xam day yëkkati daraja xam-xam day yëkkati daraja yi nit te buñ nee xam-xam alquran a ca jiitu ak wéetal suñu borom yarfai llahu yàlla dana yëkkati alladina amanu gaañi gëm yàlla walladina utul ilma ak ñay sàkku xam-xam darajaat ay daraja yu kawe ndax ñiy sàkku xam-xam dañoo bokk ci ñi gëm yàlla ahon kay waaye dañ ñu bu ñu yëkkatee ñay sàkk ña gëm yàlla ay daraja ba pare ca biir ña gëm yàlla nag dañuy defaat beneen sélection ñu sélectionné ña ña sàkku xam-xam nag borom xam-xam yëkkati leen ay daraja aaya jii de mbokk yi su amul woon benn aaya wala benn firnde buy soññee ci xam-xam bu dut bii war naa tax ñu gën a góorgóorlu bu baax kàddu yi may bëgg a yëkkati rawatina ñun ndaw ñi mi ngi jëm ci ñun ndaw ñi su ma nee ñun ndaw ñi mooy sama classe bi jëm suuf nga xam ne bay jaawaguñu di àgguñu fenn war na noo mën a am xam-xam ba koy xam-xam dafa kawe de daraja yi yàlla di yëkkati waate noonu mu koy yëkkatee fii ci àddina noonu la koy yëkkatee àllaaxira darajaat yi yàlla da koy yëkkati te di ko jaare ci xam-xam benn bis omar ibn alxataab radiallahu anhu nee na nafia ibn abdilxaaris dafa dajeeg omar ibn alxataab ca osfaan mu ne ko waaw yow xanaa du yow laa waxoon yaa toogal ma makka mu ne ko waawaaw man nga ko waxoon de waaye nag dama aajo génn mu ne ko bi ngay génn kan nga fa bàyyi mu ne ko benn waaye bu ñuy wax ibni abza moom laa fa bàyyi ci suñu jaam ya la bokk Omar ko waaw may wax nga naan ab jaam ngay dénk dëkk bu yëpp mu ne ko ah Omar innahu qaari'un li kitaabillah aalimun bil faraidi qaadin ah ab jaam la de waaye nag ku mokkal téere yàlla bi la ku man miraas la te it jàng na xam-xamu àtte Omar de ah man de déggoon naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na inna allaha la yarfau bi hada alkitabi aqwaman wa yadaau bihi axarin déggoon naa yonent bi kat di wax ni yàlla dana yëkkati ay nit ci téere bii ba ñu nekk ay sang mu suufeel ay nit ndeysaan ba ñu doyati mbokk yi xam-xam lu am solo la dëgg la nag responsabilité yi nekk ci nekk borom xam-xam ku ko xam dootoo ñemeeti loolu na bàyyi leen ko xel baax a baax responsabilité yi nekk ci nekk borom xam-xam ku ko xam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg boo xëcc du bëgg a nekk xam fatwaa nit ba tey tasab sëyam nit ba mu def ak jaamu yàlla te waru ko war a def fatwaa nit ba mu jëfe bi daa defe ne sunna la jëfe wóolu bi la nit ñi wóolu ngir di la yaakaare xam-xam di la di siiwal di jox ay sekkare fekk yow yaa gën a mën a senn tame sanqal wóolu bi la nit ñi wóolu ba di la yaakaaree diine fekk lan yaakaar dëgg-dëgg amul ci yow ak ak ak yeneen risque yu bari ay risque mi ngi ci ay risque mi ngi ci de waxuma ko nag pour ragalloo damay bañ ñu fàqandoo njariñ ya fàtte lor yi bokk na ci lor mooy su ni riirum diw borom xam-xam la hee diw kay moom bu la jàppalee masalam sàngam moom kay bu la defalee conférence fii moom kay bu dee loolu rek nga ci bëgg yonent bi nee na dee la tee tàbbi sawara dee rek moo la tee tàbbi sawara ku sàkku xam-xam bii nga xam ne dañ ko war a sàkku ngir yàlla jubluwoo ci lu dul ñu dale limaale ci borom xam-xam ya maa sawtul siiw maa nit ñi xam la maa nga amee ci ay daraja ci hadisu jaabir mu ni fan naaru an naar dee rek ka tee nga tàbbi yawmal qiyaam bokk na ci ñett ñi suñu borom di njëkk a tàbbal sawara xaawi seen sutura mooy waajoo xam ni yàlla da koo dénkoon quraan wala mu dénk ko xam-xam bu dee quraan la ma ngay tiitaru ci njàng ma di xugli ko ay baat di wane ni maa fi dàq jàng maa fi dàngam bu dee borom xam-xam la su mooy ma ngay wane ne maa fi ëpp xam-xam maa fi gën a nangam ah masala maa ko gën a jékku ci dëkk bi ah léeg-léeg sax boo ko wooyee wooyee ma xam-xam mu mer yeneen yàlla bi nee na yàlla day butti say butit muy wadd ci sa suuf ngay wëndeelu di ko wër comme mbaam mu ñu yeew ni muy wëree gàmb muy njëkk ñi nga xam ne ñoom la suñu borom bu njëkk a buggal yowmal qiyaam kon ay musiba yu bari mu ngi ci musiba yooyu nag képp ku dégg ngëneeli sàkku xam-xam yii teg ko ci sa kanam ba pare waaye nag ah bu musiba yi jàllee day sa waay li ci nekk ci ay njariñ nag moom jar na daal di jóg la fabu nag jar na jóg fabu ba ci jëkk mooy imam ali da doon wax ni xam-xam moo gën alal ñu ne ko lu tax mu ni xam-xam yow dalay lay te alal yaa koy garder borom xam-xam bu tëdd di nelaw sax nag borom xam-xam bu ragal yàlla di jëfe tëdd di nelaw laa wax nelaw yooye sax mën na ca am tiyaaba yoo xam ni mën ngaa def ay naafila yow mu nekkul boroom xam-xam te doo ko mën a am borom xam-xam yàlla da koy jagleel mboolem li nekk ci atamaan yeeg suuf yeeg biddiw yeeg bant yeeg jën yi ca biir géej dañ koy jéggalul yàlla subhanahu wa taala allahu akbar ndaw bàkkaar yu gaaw a ruus yàlla jéggal ko yàlla yërëm ko yàlla jéggal ko yàlla akbar lalal naa la nit dul soor mukk ba sumi daraam lalal la ko man ah gisaguma ko de sumi sa yére yu weex tàll dafa yaramu neen te naan nit ki lalal naa la déedéet ak musóor ngay fëkk mbaa mbaxana mbaa affaire bi ñàkk fayda lalal dana la waaye borom xam-xam moom buy dox malaaka dañ nan ko lalal nan la lan lan koy lalal seeni laaf muy joggi sa kawam allahu akbar wa inna almalaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilm malaaka yi dañuy kontaan ci kiy sàkku xam-xam ba lan seenaw laaf ko kaay joggi ci mbokk yi léegi rek la jamono commencé soppeeku ab borom xam-xam wala ndongo xam-xam di di ñàkk valeur waaye subhanallah démb sama doom day tukki wala day dem Italie wala day dem nangam déedéet nekkul woon ndam bi waaye sama doom mokkal na Qur'an sama doom borom xam-xam la mooy imaamu jàkka ja mooy nangam loolu la jigéen ñi daan bàkkoo kon waxuma la sax góor ñi gis nga xam-xam ci boppam. yàlla def na doomu aadama sens bi mu ci am boo góorgóor la benn nit gindeeku ci yow lum jaamu sunu borom am nga ci sa wàll yàlla bu yëkkatee ñi gëm yàlla ba noppi seeni daraja day yëkkati borom xam-xam nag dolliwaat ko nag martaba ju gën a kawe allahu akbar darajaat ay daraja yu kawe borom xam-xam chance bi mu am ci am ay tiyaaba ah un tiers ba sax ku dul ab borom xam-xam mënu koo am ab borom xam-xam mu faat moo gënal iblis ab dëkk ñëpp dee maanaam benn boroom xam-xam dee moo gënal iblis ab dëkk yëpp ñu faatu kenn kooku di borom xam-xam dee moo gënal iblis gis nga waxuma la nit ñi waaye jaam yi jaam yi njëkk ya ñoom dañoo xamoon lu mel nii gis nga dagay gis ni jaam yi ñoom dañ daan sawar ñu jaay leen ab borom xam-xam xam nga jaam moom bu njëkk dem marché jënd rek la jaam yi gëm yàlla te ragaloon yàlla ñoom dañ doon ñaan yàlla bu ñu leen dee jaay nañ dajeeg ab borom xam-xam xam ngeen lu mu ca jublu mooy di ko lëggéeyal di ko lëggéeyal allahu akbar imaamul buxaari rahimahullah daa ànd Muhammad ibni Xaatim al-Warraq muy ki ko doon bindal mu ne nañ dem ci marché bi ñu jënd ab jaam ñuy dox ci marché ba mu yàgg loxol imam Bukhari fël benn xale bu jigéen tayu ko daal di koy laal imam Bukhari ne fekk taxaw ca ragal yàlla ga ca ñor ga ca sell ga ca mën a moytandiku ga mu taxaw mu ne ci la def mu daal di woo Muhammad ibn Hatib al-Warraq ni ko kaay mu ñëw mu ni ko jëndal jaam bi mu ni ko mu ñëw ku ñaaw kii kii kii looloo daay imam Bukhari ku ñaaw ki jaay jaam yu rafet yaa ngi ci biir marché bi ku ko jënd imam Bukhari ni ko man laay jënd jëndal ma kii bi ñeegsee ba ci kër gi mu ne ko yow kii loo gis ci moom xam naa dari jaam boo xam ne sax taxut koo am solo lool mu ne ko yow kii lan nga gis ci moom ba nga jënd ko mu ne ko damay dox sama loxo laal te comme laal na ko rek nekk sama ron moomeel bu ko defee bàkkaar bi mën naa wàcc mu jeex léegi ndaw si ndeysaan di xitmaal imam Bukhari di xitmaal Bukhari mooy di ko dajaleel daa ji may bindeeg di ko def nangam di ko def nangam benn bis ci bis yi ndaw si dox rek daal di fel buteelu daa ji këpp imam Bukhari di ko yow xanaa amooy bët xanaa xooloo li nga tuur mu ne ko néeg bi yëpp def ko ay téere ki daa kenn daa am fooy dox xam nga wax ji dafa xaw naqari ci daf jaam te imam Bukhari du dóoraat imam Bukhari xool xool li muy fajee mer gorel naa la walkaasimin alxayda wal aafina an innaas wallahu yuhibu almuhsinin mu ne ko fabal say bagage nga dem léegi goreel naa la ndaw si ne ko duma dem mu ne ko lu sax duma dem mu ne ko toog fii di la dajaleel ay bagage ngay bind hadith yonent bi saa sallam moo ma gënal lu ma mën a am ndax ma am ci wàll allahu akbar mbokk yi ñooñu amoon nañ fiq de loolu mooy noroog la Muhammad ibni Sabah defoon dafa am ab jaam yar ko ci ragal yàlla benn bis moo am soxla yóbbu jaam bi ca marché ba di ko jaay benn waay jënd jaam ba ndeke jaam bi moom xiyaamul layli léegi moom daa mel ni aññi reer ndekki ci moom ndaw si dem ba xaaji guddi jot mu daal di commencé di fëgg néeg yi jóg leen jóg leen jóg leen naafila jot na borom kër gi ni ko yow xanaa da ngaa dof fajar daa jotagum mu ni ko yéen kon ngeen koy fajar rek ñun duñ naafila guddi ndaw si daal di julli fajar rek samp xel wi daw dellu ka ko jaayoon muy Muhammad ibni Sabaax mu ne ko yaama moom yaama jaay xaw ma ñaata nga ma jaayee waaye njëg gi mu ne ko jaay nga ma nit ñu yées ndax ñi nga ma jaay duñ julli guddi taman xaw ma loolu dimbali ma nga delloowaat njëg gi indi ma fii ma ne woon bi daal di wutiwaat lu mu jëndee jaam bi delloowaat njëg indiwaat ndaw si ci biir kër gi maanaam sëq bi ñu amoon mooy xam-xam même bu ma ko amut sax ma bokk ci suq yu bokk ci suq ya nga xam ni même bu ma amut lu dul ñaanal sax borom xam-xam bi ma ñaanal ko ibnul qayim rahimahullah dafa am benn bu am solo bu mu taalif tuddee ko miftaaxu daari saada téere bu ama ama am solo la xam naa bu ma nee bu ama solo kenn ci ñoom xanaa dañu ne téere yëpp am solo ma ne am solo mi ngi mel ni benn waay bu ne ji aay am solo la moo ne aay yëpp am solo la téere bi mi ngi tudd miftaaxu daari saada delloo ci téere boobu ibn al qayyim rahimahullah wax na ci xam-xam loo xam ni jàpp naa ni même bu fekkoonte ni yow soobu woon ci bëgg nekk borom xam-xam sax boo ko yëree moom bu soobee yàlla foofu ngay takkee say daal moom lu mat cent et quelques pages téeméeri safxaag lu topp muy wax rek di dem rek ci xam-xam téeméeri njariñ ak juróom fukk ñeent wala téeméeri njariñ ak juróom fukk ak ñett Ibn al Qayyim tudd ko ca ci njariñu xam-xam li ma ca gën a yéem mooy dafa lim di lim di lim di lim bañ yàgg mu ne gis nga li lay wan njariñu xam-xam mooy xaj bu am xam-xam sax moo ëpp valeur ca yàlla xaj bu amul xam-xam xoolal xaj génn nit ñi xaj يسألونك ماذا أحل لكم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح المكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا ما أمسكنا واذكروا اسم الله lu dagan ak lu dagalu suñu borom ni li dagan mooy léeg-léeg ak xaj boo xam ni da ngeen koo jàngal xam-xamu rëbb kon xam-xam la de ba man xam-xam ba mu dem dal di rëbb indi su dikkee lekkal su fekkee xaj ñu jàngalul rëbb la bu jàppee indi doo lekk bii lu tax ngay lekk da koo jàng dafa am xam-xam maanaam ba xam-xam bee ko may valeur muy fa kulul maanaam sak nag bu jàppee lekkal wazkur ismallah tuddal yàlla rek waxal bismillah nga lekk te loolu beneen bu ko defee boo lekkee xaraam na allahu yi xaj yi sax ñi ngi rawantee ci xam-xam gis nga bi muy leeral ca tàmbali ba xëy na tomb yam ca tudd am na solo am solo goo xam ne ñàkkul la àlla bis dina dana mëta ñëw mënees naa jël benn silsila boo xam ne loolu la ñuy topp ngir ñu mën cee istifaada wu waaye ngir ma jukki ci as lépp rek aaya jooju suñu borom jox shahid allahu annahu la ilaha illa hu والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو yàlla mu ni sunu borom yàlla seede na ni moom dëgg dëgg dëgg moom rek mooy yàlla loolu moom yàlla nee na jël naa sama bopp def ko témoin malaaka yi seede ko borom xam-xam yi seede ko mu tege ci dëgg amul kenn ku dul sunu borom ibn al qayyim mu ni ban martaba la borom xam-xam am ah nga xam ne tey wut témoin xam nga témoin du ku koo jël rek jël mu ni yàlla ni mu màggee ni mu fooree ban martaba la borom xam-xam am ba yàlla wut. témoin ca malaaka mu ñëw ci nit ñi war a wut témoin mu tànn borom xam-xam ni ko ñëwal nga représenté yow moom doy nga mu ni istishhaduhum duna gayrihim min al bashar tànn gi ko suñu borom tànn mu war a seede walis mbindeef yi benn ngo ñaareel bi mooy rang rangale gi ñu ko rangale ca mbooloom malaaka ya mu ni martaba ngo ñetteel bi mooy seede gi nga xam ni suñu borom seede na ni yow ku mat seede nga da xam ngeen ni yàlla mi mën a tànn ñuy tànne du déedéet moo tax euh, yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci boo seetloo ña doon dund moom ñi nga xam ne yàlla suñu borom dénkoon na leen xam-xam martaba bi ñu amoon te buñ lee xam-xam ñu ngi tàmbalee ci alquran loolu ngay toppee muy lim di indi ay njariñ di indi ay njariñ ba daanaka yow njariñ ya muy lim da nga yéemu ci yàlla ci xam nekk te xaw moo ne xam-xam nii la mel dañ la mbaat kii ne seetlu rek aadama alayhi salaatu wasalaam aadama yàlla dañu wa allama aadama al asmaa kullaha ilmi ñëw na loolu waral usjudu li aadam su jootal leen su jootal leen aadama malaaka yëpp su jootal aadama takriman lahu wa tashrifan lahu wa dhalika bi sababi al ilm ndax aadama xam na lu ñu xamut li nga xam-xam dafa yàgg a teral doomu aadama ci kaw suuf waxuma ne sax sa diggante ay sa borom ak ay li ñuy yëgee àllaaxira martaba yu kawe ak déedéet waaye fii ci àddina mbokk yi xam-xam daa yàgg a teral ni ñaata ngay dem ci ab àll gis waa joo xam ne su mooy seen sami ah ñoo nekk ay sàmba sugum njaay dëkk bi nga xam ne su mooy kenn taale wu leen kenn joxu leen yitte kenn joxu leen gëdd yàlla ëllëntag benn waay boo xam ni borom xam-xam la rek waaye mu yëkkati askan la loolu moom man muusul mar iyun mas mu lamb nañ ko daj ko xool ko gis ko gis da ngay gis koo xam ni allahu akbar maanaam ci ci ci xam-xam la yàlla jaarale aw askanam yéegal leen ba ñu kawe te loolu lépp lay amee ci àdduna mbirum àllaaxira àllaaxira mu egg see nga gis koo xam ni su mooy yàlla da koy def kilifa wallahi ci xam-xam moo ko may wala alquran inna allah la yarfa bi hada alkitab aqwaman yarfa la wax de yarfa ne na ba àjjana de fii ci àddina sax rifa xam-xam da lay yëkkati nga kawe nga koor ah nga xam ni doomu aadama bi day dem ba daanaka mën naa ni yow li la yàlla dénk li yàlla dénk doomu aadama yi ci kaw suuf da ngay gis ni lii xam-xam moo ko dàq orma ji la suñu borom di jox ji la nit jox yaakaar ji am ci yow barke bi suñu borom di barkeel sa xam-xam njëriñ bi ngay umma bi ah gërëm bi la suñu borom di gërëm ak ay mbir yu bari moo tax na nga leen saxaaba ya ak taabi'uun ya yaakaar naa ku jàng siira maanaam benn valeur bu borom alal amoon man laa mosul xam man kuñ doon tagg naan borom alal la di ko ko taggee déedéet maanaam da ngay gis ku mos a judd rek taalibe la doon doon. léegi nekk nekk taalibu ilm ba pare nekk ndongal xam-xam loolu nag li ma ci jublu mooy soññ suñu bopp soññ suñu mbokk ndongo yi ñu la nekk ay borom yu xam-xam dëgg la ay daanga yu bari nekk na ci waaye nag ki yàlla baaxe mu góorgóorlu jéem a bokk ci rangu borom xam-xam ya yonent yàlla bi nee na yowmal qiyaamati mu xam-xam yi buñ defee ab Muaz ibnu Jabal mooy jiitu ca kanam jiite mbooloo ñu dem allahu akbar bi ñu demee yomal qiyaam su rawu borom xam-xam yi taxawee ñu war leen di berndeel Muaz jiitu ca kanam xàll yoon wax nga xam ngeen ni kooku féere la woon féere la woon ci xam-xam moom Muaz ibnu Jabal kon suñu borom ni yarfa allahu alladina amanu minkum yalla day yëkkati ci yeen ñu gëm yalla walladina utul ilma ak ñi nga xam dañuy sàkk xam-xam darajaat ay daraja yu kawe kawe suñu borom subhanahu wa taala muy darajaat yooyu yalla da koy def ci aduna def ko ci alaxira loolu nag war naa nekk sabab pour yaay yi tamit takkuwaat takkuwaat takkuwaat bu baax nga xam ngeen ni jeexantal yi yaay am ci préparer ab borom xam-xam bàyyi xam nga ko def xam nga bàyyi lu mu mën bàyyi jàngal la bàyyi yóbbu la nga jàng waaye jumtukaay yi nag jumtukaay yooyu tax yaa ngi dañ de karartuhu wa karartuhu wa karartuhu yaa ngi dañ ko doon liggéey de tàmbalee ko ci ragal yàlla ga tàmbalee ko ci di ko sabablu tàmbalee ko ci déggal sa borom tàmbalee ko déggal sa borom kër tàmbalee ko nangoo nekk jàngkat nag nangoo nekk jàngkat ndax léeg-léeg borom xam dañuy wax ne boo seetloo eh, may yi suñu borom di maye dëgg dëgg dëgg dëgg ci bunt bi ci xam-xam dana ko may ñi nga xam ne sonn nañ ci xam-xam ci bés loolu dara gën sa neex yaay góorgóorlu ba جيرم الإسلام أب إمام يوم القيام بن ها برم خم خم يه خم الأمة دي يا كان سيني لا يدري أم لين كونتان البخاري إمام البيهقي دار قطني ابن السني ابن الدقيق ابن حجر ابن القيم ابن تيمية إمام زهبي برم خم خم يه خم ها نعرف xam yi passé maa ngi seetaan benn borom xam-xam bu mag buy def muy def thèse doctorat mu defee thèse ba affaire yegg xam naa ñu may ko nopp mu jàll ci jàll bu baax sax macha allah muy gërëm ñu ko ci jàppale bi mu yegsee ci yaayam ndeysaan ñu dafa turist nag bi muy sant ba ci yaayam dañu maa ngi gërëm fekk yaayam ñu ngi ci mbooloo mi yaay ñu ngi ko teg ci nii mu ngi maa ngi gërëm suma yaay mu ne maa ngi tàmbale ci tëti baaraam yi fóon naa baaraam yi fóon naa óom yi fóon naa ndigg bi fóon naa dënd bi fóon naa bopp bi yaay bi dafa mujj jooy allahu wax ji day yaram sax fóon naa ko ci tànk ba ci kaw bopp moom sama yaay fekk yaay jaa ngi jooy day tànn jooy yooyu jooyu mbégte la loolu da di parce que damaa jàpp ne même dañu nekk borom xam-xam taxal jëlal l'islam ab borom xam-xam kon yarfa allahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat wallahu bima taamaluna xabir nu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala an yarudda almuslimina ila dinihim maradan jamila noo ñaan suñu borom mu wërsëgal lu ci sunuy njaboot ak sunuy doom ak ñun sax nag ay borom yi xam-xam yal yàlla boole ñu ci borom xam-xam yi nga xam ni ah لا يخشون احدا الا الله يلا سن برام بولن كيغا خامي يستبشرون اذا احسنوا ها ويحزنون اذا اساءوا يلا يلا بول ني ديفال توفيق في الدنيا والاخره وصلى الله وسلم على الحبيب محمد وعلى اله واصحابه اجمعين